loolu laa mënoon analyser ci sa. ok euh, première question pour revenir ci première question bi. Mm-hmm. xam nga nous sommes dans une république qui est par des lois et des règlements man loolu laa gëm. il n'y a aucune loi qui impose au chef de l'État de se prononcer sur sa candidature c'est une affaire politique mm-hmm. kon ñun bu ñu taxawee ne moom da cee war a wax par force fu ñu ko teg. mais ñoo ñooñu géew may ma ma ñëw waa politique yi ñoo doon ñoo doon kii de foofu la foofu laay waxee ok foofu laay waxee waxin la c'est mhm. ah métaphore la quoi waxin la ñun maanaam ñun la population la masse ñun la population parce que wax ji yëpp loolu la woon parce que man bokkuma ci ñu doon wax dafa war a wax par force mais dama ne ñun dama ko globaliser wolof laay làq daal maa tax mhm. yaa ngi dégg mhm. amul benn loi wala benn règlement buy wax que ni à tel moment président de la république dafa war a prononcer wu sur sa candidature. amul donc lan moo tax ñu war a weñ loxoom benn gis nga président de la république institution la waxuma sax Macky Sall ak ku mën a di doon président de la république institution la dañ ko war a wormaal. parce que am na loo xamante ni boo ko ormaalul rek problème lay indi. Hmm. yaa ngi dégg donc du ma wax waaw du ma wax déet mais exemple am na fi jëlal ma Mali. bi bis bi ATT ne man du ma nekk candidat la gëj a gouverner ci la ñëpp commencé xool moom bu nekkul candidat kan mooy nekk prochain président de la République en ce moment. Ah, mais mën nañu jël aussi l'exemple du Niger. mais ma la Mauritanie l'exemple du Nigéria. mais yëpp ay exemple la tamit. du Ghana du mais ma ma ñëw exemple Mali laa jël. Mhm. après nga jël beneen exemple man dama ne. bi mu ko defee lan moo xew ci la gëj a ñu bëri dañu foog ne dañ ko coup d'état mais coup d'état wuñ ko non seulement il était pas candidat à sa propre succession mais il lui restait un mois au pouvoir bi ñuy ji militaires yi di jël pouvoir bi pourquoi parce qu'on voulait empêcher IBK d'être président yaa ngi yaa ngi yaa ngi suivre donc euh, dafa am loo xamante ne nii ki nga xamante ni moo nekk au pouvoir xam lee réalité du pouvoir xam lee réalité de son camp politique moom moo xam à quel moment la mën a prononcé wu kañ lay régler sa cuisine interne pour mën a prononcé wu. Mm-hmm. d'accord te loolu kenn mënu ko ko imposer loolu mooy benn beneen bi mooy vous n'êtes pas sans savoir te nañ waxante dëgg parce que dëgg moo fi nekk te ñun ñëpp fekke nañ. Mm-hmm. qu'est-ce qui a fait la popularité de Ousmane Sonko. lu def popularité Ousmane Sonko. quel est quel est sont les sous-bassements du discours ah, de de de de de Ousmane Sonko c'est le nationalisme et c'est quoi le nationalisme mooy sama bopp ma la gënal du bañ naa la c'est pas le nationalisme je suis non sama non ma laaj sama gis-gis laa waaw gis-gis ci nationalisme mooy sama bopp ma gënal bañ naa xam nga ñun dañu am ay problèmes Sénégal et ça c'est pratiquement dans pratiquement beaucoup tous les pays anciennement colonisés mhm. ñun benn amuñu notion d' état nu ñuy waxee état ci olof nguur gi nu ñuy waxee gouvernement ci olof nguur gi mm-hmm. te gis nga notion nguur boobu ñu am moo ñu yàqal lu bëri moo tax amuñu notion bien publique ak bien commun mm-hmm. mbedd mi lu ñu ko tuddee mbeddum buur kenn moomu ko lu waaye neex def mm-hmm. les deniers publique nu ñu ko tuddee alalu buur alalu buur liggéey maanaam liggéey réew mi nu ñu ko tuddee liggéeyu buur kenn mënu koo jeexal mm. tant que notion de nguur boobu mi ngi fi ñun duñ jëm kanam ça c'est l'anthropologue qui parle parce que <laughs> yow <laughs> kër boo <laughs> dugg fii ci wakaam wala mamel doon xamal gars yi ni c'est l'anthropologue qui parle kër boo dugg ci ci fii ci ndakaaru wala nga dem kër Massar boo xëyee dinañ bale kër gi ba mu set bale ba bale buntu kër gi bale mbedd mi ba lay ko mm-hmm. jël mbalit mi sànni ko fan ci mbeddu mbuur mm-hmm. ndax mbedd mi kenn moomu ko waaye kenn du nangu sa kër tilim mm-hmm. parce que dañoo yaakaar ni le bien public c'est le bien qui n'appartient à personne mm-hmm. li nga xamante ni moom lañu bokk ñëpp war koo sàmm muy li ñuy wax le bien public ñun dañoo jàpp ni bien public mooy li kenn moomul ndax kenn du bale sa kër ba mu set jël sa mbalit sànni ko sa kër nawle déedéet doo ko sànni sa kër sa kër sa kër dëkkandoo da koy sànni ji ci mbedd ma nga waas say jën dem tuur ko ci mbedd mi te dara du la ci fekk lu tax parce que mbedd mi du lu ñu bokk buur a ko moom mais kuy buur donc quand on parle de république quand parle de nationalisme pour en revenir à, à, à ce que tu disais tout à l'heure il faut faire très attention sur ces notions-là